jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV Serigne Makhtar Soxna tey dama ñëw ne ko combat Reug ak Sa Thiès mu ne ma bul ma wax waxi mbër yi lan moo xew dina ko laaj nee na ma am na ministre boo xamante ni day wàcc président da koy wàccee dina ko laaj kan la Ousmane Sonko ñu ne aji Sarr moom moo violé Adji Sarr ñu ne violé ko. ñu demaat ba mu yàgg am keneen ku génn ne daana maase Sonko sëriñ bi ne ma tey am na loo xamante ni dinaa ko leeral mbokk yi l'heure est danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi ba tey Adji Sarr est-ce que dof na réellement am ñu ne noonu aju doful day dof doflu danañ ci dugg andi ci ay leeral danañ waxtaanee li xew ci dëkk mais laata loolu gëj nañoo gis sëriñ Makhtar Soxna borom biddiw yi mais dañu koy bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan wi sëriñ Makhtar maître El Hadj Diouf yéen a bokk koñ fii ci maris te maître dañ ne woon damm na maître xëy wéq ay tànkam tàllal ay loxoom ne dara jotu ko maître jamono ji doon na soox bu romb wala sooxul loolu tamit dinaa la ko balaa boobu ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi. xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika fal yafrahu huwa xayrun mimma yajmaun alhamdulillah alhamdu mutlaqan li zaatil baari ثم سلامنا على المختار بزر الوجود مذكير أسرار السر السؤون مجمع الأنوار ñu ngi sant yàlla bu baax. dégg daaj. di la dalal. di kontaan bu baax di la nuyu di nuyu Médine. di nuyu Sénégalais di nuyu kilifa diine yi ak yu aada yi yëpp. di nuyu suñu soppe yi nga xamante ni <clears throat> gëj nañ ñoo gis ci sit bi. ñu gëj def émission du dara nag lu dul xam nga rek àddina moom. parfois dangay nekk ci ay itte te ñun réew mi réew mi daf ñu ñor réew mi daf ñu itte lool te su fekkee ne nag yàlla dafa am lu mu la dénk ci sa réew soxlaa da ngay bàyyi sa bopp demal demal réew mi loolu moom la suñ mbokk militaire yi signé moom la gendarmerie signé moom la police signé ba tax na suñu gëj a gisee ak yéen ak soppe yi loolu la woon dégg daaj am na ñu bëgg réew mi senegal am na ñu ko bëgg lool. ndax dafa am kilifa goo xam ne. il faut ma wax ak àddina bi yëpp. ñuy ñaanal yàlla ñu mel ni ñooñu. daf ma woo téléphone. fii la ma seetaanee seen sit ma dem këram ñu toog waxtaan. mu xamal ma lu bëri ci àddina. ak ni muy doxee. wax ma tamit lu bëri. ne ma nag dama bëgg nga ñaanal réew mi waxuma nga ñaanal président Macky Sall waxuma nga ñaanal Ousmane Sonko waxuma nga ñaanal Khalifa Sall damaa bëgg nga ñaanal réew mi yëkkati alal ju bëri jox ma ne ma demal nga tëju nga ñaanal réew mi waaye dégg daaj bi yàlla dogalee man ma dugg xalwa man soma man mii di wax ak yow man sama bopp gis naa loo xam ne wuute na lool ak ni réew mi yaakaar ak ni réew mi foog ci jamono yi may wax ak yow. moo tax dégg. Mhm. suñ borom subhaanahu wa mhm. waxtu woo xamee ne doomu aadama bi moom. Mhm. def na ay pexeem yépp ba noppi. boo xamee ne doomu aadama bi moom ci boppam. yaakaar na xalaat. lim bëgg. ne mooy am. waaw doomu aadama moom li war la xam. waaye suñu borom subhaanahu wa taala moom li jot la xam. yàlla li jot rek la xam doomu aadama nag moom moo xam li war. kii moo war moo war def nangam dégg daaj moo war a nekk nangam Medina war a nekk nangam Mouhamadul Makhtar war a nekk nangam waaye yàlla moom. lu jot rek la xam. te lu jot rek suñu borom def ko. dégg daaj lu bëree bëree bëree bëri ngi koy dégg. maa ngi la ko waxoon fii ci ay jamono dama la koy waxaat lu bëri yaa ngi koy dégg. waaye ni koy déggee bokkut ak ni nga xam ne noonu la amee. wala ni ko gaa yi di déggee bokk ak ni nga xamante ni yaa ngi dégg noonu la amee. ba tax na bi réew mi tollee fi mu toll dégg. ñu dem fatu. waaw ñaan yàlla dal. stabilité am ci réew mi. te loolu ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla loolu yal na ko yàlla yokk. ndax jàmm ñun ñëpp su amee ñun ñëpp la yaa ngi dégg itteel. ndax ñun ñoo bokk réew mi te ku nekk xam na ne fitna euh, dafay nelaw yàlla uh, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci hadis fitna mu ngi nelaw yàlla rëbb na ko ko ee te képp ko ee fitna yàlla dana la mbugal yowmal qiyaama kon nag nañuy moytundiku fitna amut benn njëriñ baaxut nañ xam ne ni mooy doxal réew mi te ñi man maanaam ñi nga xam ne man nañ ñaan yàlla te di ko wax te di fëgg seen dënn dama bëgg ñu jël Ousmane Sonko ak Macky Sall. nopp leen boole leen ñu ànd. loolu yaakaar nga ne loolu du indi jàmm ci réew mi. sëñ bi nopp boole Ousmane Sonko ak Macky Sall loolu est-ce que loolu métti na de. dama laaj def ke dama joxe question dama ne. Uh-huh. sëriñ si nga xam ne ñoom nee na yàlla may nañ leen xam-xam. te ñuy ñaan yàlla. Uh-huh. amee ay secret te nee nañ amee nañ lu wóor. Uh-huh. dama ne ñàkk ànd président Macky Sall ak Ousmane Sonko. moo indi coow li ci réew mi fitna bi yëpp. ma ne nag loolu ñu amee noonu bu dee wóor na. nañ jël Ousmane Sonko ak Macky Sall boole leen. buñ buñ leen noobee xaj na danañ mën a toog waxtaan. te loolu. dégg daaj. waaw. képp ku ko def rek day man nangu naa ne yàlla may na la. ma wax la ci loolu nag ne waxuma li olof di wax for naa ci wewu béy. Mhm. ci li yàlla di won jaamam nag laa wax. Mhm. am na kenn koo xam ne nii itam léegi lool lool rek la. ba bëccëg su ngoon mooy nu président Macky Sall la def ba toog ak Ousmane Sonko. la du yomb. Mhm. nag <clears throat> àddina bul ne dara mënta am. Mhm. lu nekk rek mën naa am. Mhm. ndax ñoom ñoo bokk politique bi kenn ku ci nekk rek am na loo xam ne moromam dana ko ko jëriñ. dana ko ko arrangé ci ci ko su ko ko ko yombalalee. bu ko nag lu nekk mën naa am waxuñ ne nag loolooy am. Euh, dégg daaj. waaw ngi lay maa ngi lay nuyu. Mhm. Euh, dégg. yàlla dafa bind doomu aadama ci ñetti melo. dafa bind doomu aadama ci meloy malayka mhm. ak melay bàyyi ma ak melo doomu aadama bi ci boppam. Mhm. nit des fois mu matadi matadi malay mala maanaam bàyyi ma. ba nga xam ne lu ko neex def lu ko neex wax. nañu xàmmee tamit waayu doomu aadama yooyu noonu. nit des fois mu baax lool lool lool lool lool lool lool ba àgg ci maqaamay malaaka yi. yàllaa ko bind ci loolu daraja boobu. des fois it mu digg doomu. des fois mu nekk diggante baax ak ak mbon. kon nag loolu moom mooy jikkoy doomu aadama ci yàlla ci loolu ko bind. ndax dafa am pays ci pays yàlla yi pays boo xam ne ni ñun ñoo ko moom muy pays naasooti. Mhm. foofu noonu adamiyatu bi dafay ñëw ci doomu aadama bi maanaam nit ki doomu aadama bi nga xam ne yàlla bind na ko mu nekk nit nga xamante ni daf ko togg ay jëf mhm. tereloo ko yaa ngi dégg bàyyiloo ko tereloo ko tereloo ko bàyyiloo ko kooku laa wax ne des fois dafa am yu koy dal yoo xamante ne nii moom matadi moom moo tax mu koy dal ndax doomu aadama matut mhm. kon bu ko defee nag nit kooku tey hmm, nañuy xàmmee ñetti daraja yooyu ma la wax ne yalla moo ko ko bindee moom doomu aadama bi mooy dafa amee melooy melooy malaayka ci baax lool wala mu amee de fois daraja yi bàyyi ma yées lool nga xam ne lu ko neex def. alxuraan indi na ko su ma raddat naaw asfala saafiliin nga xam ne dañuy dem ba sax baay ma yi ñoo leen di ñoo leen di gën. am na nag foo xamante ni foo mooy dafay digg doomu mooy dafay boole baax ak bon. yii mooy ñetti daraja yi nga xam ne moom la yàlla bindee yaa ngi dégg doomu aadama. Euh, ma wax ne tamit. ñi ñi nga xam ne tey jii dégg danañu nekk ci euh, lii mel nii jëmtukaay yi di communication di wax. Mhm. te nit ñi di leen déglu. waaw nañ ndeku yenn kàddu yi nga xamante ne nii. Mm-hmm. dara du ci nekk dëgg ñu koy wax. Mm-hmm. loolu bokk na ci li nga xamante nii moom moo gën a indi problème ci dëkk bi tey. Mm-hmm. dangay xool tey ku mel ni Cheikh Bara njaay toog ci télévision. ñëpp di la seetaan. mu am ay soppe am nit ñu la bëgg. am nit ñu la bañ ndax looloo ne ci àddina. am ñu ànd ak yow am ñu la contre. nga toog ne maître El Hadj Diouf day dafa daanu ci douze nawleem douze. Oh. damm. xam nga loolu dafa nekk loo xamante ni nag dëgg suñ nekkee ci dëkk dañuy waxante li nga xam ne mooy dëgg. parce que fii kenn gënul fi kenn ñun ñëpp ay Sénégalais lañ. ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ñoo bokk réew mi. Mhm. te Sénégal dafa nekk dëkk bu bu bu yaatu dëgg la ci xam-xam. yaa ngi dégg ak ci gis-gis waaye dekk dëkk bu ndaw ci ak mbokk ak dëkkandoor mm-hmm. bu ko defee ne am na loo xamante ni kilifa moomut ko mm-hmm. mooy lépp loo xam ne da nga koy wax ci nit ak ku mënti doon na na fekk mu nekk loo xamante ni lu la mm-hmm. loo xam ne it dëgg la ak nit ki loo ko contre contre wala bu fekkee ne kaf la te te xaar xaar naa it mu génn ne dama doon kaf rek ndax loolu moom loo xam ne dëgg la El Hadj Diouf dara ba dara booloo jeex dalut ko mu mu ngi mu ngi dox man gis naa ko man. mu ngi dox euh, mu ngi def sax sport comme ni ma la ko mën a waxee. kon nag yooyu nañ koy moytandiku. surtout su ñoo kon xamante ne nii wala ñoo xamante ne nii. dañ leen di déglu lépp loo xam ne xew na ci réew mi dañ leen di déglu beneen bi ci tegee dégg. man ci sama xam-xam. bu ndaw bu tuuti bu ma yàlla jox. li lay wax nii danga ko bàyyi xel. projet Ousmane Sonko bii di ñëw la 16. man maa la ko wax bii di ñëw képp koo xam na nii maanaam yaa ngi man nga ci wax wala ci def ay démarches ñu toxal ko ba jëmmi jamono nañ ko def lan moo nar xew le 16 waaw ma ne mars bii di ñëw laa wax uh-huh. maa ngi wax ak àddina bu fekkee ne mën nañoo changer date bi ba beneen jëmmi jamono ñu door koo attewaat nañ ko def dégg bu fekkee da nga gëmmentu ñu jox la kafe nga naan ndax damaa bëgg waxtaan ak Sénégal te fi mu nekk damaa gis ngay óbbali su fekkente ne nag da ngaa gëmmentu nañ la defaral nga naan su ko defee ñu door a mën a waxtaan maak yow dëgg dëgg dëgg waxtaan euh, loolu mooy li nga xam ne uh-huh. maa ngi koy baaxee ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo yor lii di nguur ah. wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu yoon ci réew mi uh-huh. le 16 mars. waaw suñ ko mënee laa wax. Uh-huh. nañ ko toxal alaaji ba ba jëmi ba jëmi jamono. ñaareelu xibaar bi ma lay wax mooy. Uh-huh. <laughs> ministre ministre bi. dafay wàcc. ministre ban. am na benn ministre boo xamante ne ni jamono jii may wax ak yow. Uh-huh. moom nguuram gi jeex na. lii moom bàyyi ko xel. dafay wàcc yàggut dara mais dafay wàcc. <laughs> xolal moom ci boppam. moom ci boppam mi may wax ak moom xam na ne moom dafay wàcc. nguuram jeex na tag mhm. te gis naa ne am na benn mag moo xam ne làkkat la. Mhm. mbokkam la moom. Mhm. mu ko jox lum jëfandikoo. waaye lam ko jox mu jëfandikoo gënut ci moom. Oh. gënut ci biddiwam gënut ci rawaxaaniyam moo tax ma ne la moom mooy ki nga xamante ni ci histoire Sénégal ci politique. mooy ki gën a gàtt nguuru ministère ci Sénégal. Oh. lii xibaar la boo xam ne bàyyiloo ko xel nit ñi. lu yàlla wane la te dana xam kenn du ci mën dara. waaw li maa la ko wax. sëñ Maxtaar soxna borom biddiw yi jigéen des fois dana toog kenn du ko takk ñu ne biddiwam moo lëndëm waaye jigéen dana toog jëkkër yomb ko ba bu jugee ci kii même bu tasee sax amaat beneen jëkkër ana naka la nit ki mën a def ba su bëggee sëy rek yàlla warul ko borom kër wala jabar ju baax. jigéen ñi bëgg sëy bëriwut. surtout loolu. jigéen ñi bëgg sëy bëriwut ni ki góor ñi bëgg jabar <laughs> bëriwut. am góor ñoo xam ne kenn mënut a fexe bañ tàkk jabar. <laughs> te bokk na nag ci li nga xam ne nag mooy war a wane ne yow góor nga mooy. ñu may la soxna. waaw. Euh, dégg. Uh-huh. dafa am bant boo xam ne dafay traverser yoon. Uh-huh. képp koo xam ne jigéen nga te bëgg sëy uh-huh. lii man maa la ko wax dara du ci dëñ képp koo xam ne da bëgg a sëy bant bi traversé yoon maanaam garab goo xam ne nii reen bi dafa yoon soo doxee ba àgg ci reen bi mu traversé yoon bi soo ko daggee yow ko jigéen ki soo ko defee ak galang takk ko sa ndigg bés ba ko dagg bu dee altine la wala alxames balaa bés bi di del suñu may la jëkkër laa ilaaha illallaah fekkee na nag lii di rab olof di ko wax àndandoor dalut la balaa bés bi di del soo ko takkee ñu may la jëkkër. bu fekkee ne nag rabal amee loolu moom leneen la. ndax feebar yi dafay am. ñu pikiir la wala ñu sampal la perfusion wala ñu opérer la. Mhm. bu fekkee ne nag def na yow lii di àndandoor dab la. Mhm. kooku moom dañuy def opération. ñu xool loolu lan mooy saafaram waaye li ma la wax nii moom. mooy tegtal bi nga xam ne nii képp koo xam ne bëgg nga jëkkër. Mhm. soo doxee ba gis reen bu traversé yoon. garab gu sax si pegg yoon. reen ba traversé yoon nga dagg ba. takk ko sa ndigg bés bi nga ko takk balaa dellusi incha bu dee ki nga xamante ni dañ koo àtte tribunal ba war koo tëj ay mbokkam jaaxle juge bi wala procureur ne kii moom xaw ma kan mais day tëdd kookee lan moo ko mën a génnee lan moo mën a fexe ba du tëdd. jamono ji bëree tut matt. nga lu ci gën a bëri. dégg ki la ñu toggee. këriñ la ñuy wala gaz. jamono ji bëree tut matt. waaye góor jigéen joo xam ne nii maanaam togg na togg na ci matt ba pare. waaw bu njëkk saalum soo toggaan ba. baaral li ñuy wax baaral ba ceeb bi ñor da ngay wànq xali mu génn nga fay ko. këriñ yooyu boo ko amee. këriñ googu boo ko amee. am na loo xam ne danga nga koy boolanteeg moom. nga dem fekk xaj bu dee. waaw nga yëkkati bopp xaj bi wala fi mu tëdd nga tibb ci suuf soosu boole ko këriñ googu boo ko sangoowee. juge. waaw. juge laa wax de. wala procureur. Mhm. wala greffier képp koo xam ne jël na bégam teg la daan. Eh. déglu bu baax li ma lay wax képp koo xam ne jël na bigam teg sa tur daan mm-hmm. billaahi lazi laa ilaaha illaa hu balaa bés bi suñu fi daaw ko loolu moom maa li ma la wax moom mooy loolu secret la boo xamante ne nii am na lu doxuñu ca biir nag waaye ñaar yii moo ko composé mooy mm-hmm. jigéen joo xam ne togg na ci ay matt ba baaral añ bi wànq matt mi eh, safara si génn mu fay ko mm-hmm. këriñ googu soo ko jëlee dem yëkkati bopp xaj wala fu mu tëddoon dee nga tibb suuf sa am na secret bi mu àndal képp koo xam ne am nga ko nit war laa jugé ci àddina mënut laa wax wax bu tëj la ci la ilaha bu ko defee rek du ko jëkk sëñ bi bu dee nit ki nga xamante ni day bëgg dem ñaani visa wala ki nekk bitim réew yàgg fa loolu te mënta am kayit te pourtant am na ay moromam yu ñëw am kayit ba ñibbi seen dëkk yi gisanteeg seen i soxna te moom mënta am kayit kookee ban solution moo gaaw ci dimbali ko. waaw dégg. Mhm. dafa am picc. Mhm. moo xam ne. dañ koy wax baaxoñ olof dana koy wax baaxoñ mhm. am na picc boo xam ne danañ koy wax njugub mhm. am na picc boo xamante ne nii tamit danañ koy wax yaa ngi dégg kumba euh, ting ting mhm. waaye nag lu ci gën a bëri nawet lay am mais picc daal en généralement bu mu mën a doon nay naaw rek picc moom su amee yow ki nga xam ne yaa bëgg visa wala nga bëgg a ñibbisi am na cax beneen secret su ma paree ci boobu danaa la ci leeralaat ba tey ci biir loolu ndax am na lu ñuy wax naawtal mooy lan mooy yaa ngi gis nit koo xamante ne ni tey neexul la ci koñ wala neexul la ci dëkk wala neexul la ci fi ngay liggéey nga bëgg koo naatal mu dem am na ba tey ci biir loolu secret boo xam ne fa nga koy def su ko defee mu génn réew mi moom dootu fi toog lool mooy naawtal hmm. am na it wooj loo xam ne nit ki dafa dem yàgg lool man mënta ñëw am na tamit secret bu koy wooj pour mu ñëw loolu danañ ci dugg waaye bi may wax mooy wàllu kayit képp koo xam ne bëgg nga kayit kayit gi toogul benn réew nag secret bii ma lay wax nii képp koo xam ne nii def nga ko li ma lay wax bàyyi ko xel man lépp lu may wax nit ñi si internet laa toog di ko wax te bëgg naa lépp lu ma wax nit ëllëgee buñ toogee maag yow nga ne nga ne nga ma ko am na te loolu it alaaji lay wax benn affaire fi mu ne nii lool lool lool lool lool lool Euh, Iba jox ma Iba jox ma Ibrahima jox ma kaye boobu noonu. jox bi dafa bëri. bu ko defee maa ngi waxaat ni ñi ne leen. léegi dañuy bëgg di def euh, euh, chaque incha allahu taala chaque chaque jour journée bu nekk midi. wala midi et demi. la ñuy commencé incha allah li nga xam ne moom mooy rendez-vous yi. daanaka alaaji lii yëpp ay ay rendez-vous la yoo xamante ne nii. Uh-huh. ay nit lañ ko ay nit lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko jox. Uh-huh. bu ko defee nag. ñu bàyyi ñu bàyyi loolu ñu bàyyi loolu xel. Uh-huh. midi la ñu commencé midi demi. cinq heures ñu tëj rendez-vous bi nag journée bu nekk duñu romb fukki nit moom rek la ñuy jël ci kër gi ndax dañu am ñoo xamante ni bitim réew lañ nekk te ñooñu dañuy jëflante ak ñoom si téléphone yi te dañ leen di may tamit seen wàll euh, dégg waaw boo jëlee picc moomu waaw da ngay liggéey hmm. secret boo xam ne ci tabat ya daal a nekk nga jël turu jaamu yàlla bi nga xam ne moom dafa bëgg tukki ak fu mu bëgg dem nag. Uh-huh. danaa ci wax nag benn sew sew ci ki nga xam ne dama koy defal wala ki nga xam ne moom mu ngi may dégg te soxla ko. Uh-huh. mooy. loolu buñ la ko defalee moom dootoo toog benn réew. da ngay rek. da da ngay wër rek. Uh-huh. suñ la ko liggéeyalee ba takk ko ci picc mi ba sànni ko bés ko xamee ne moom lañ ko sànni bu fekkee danga ngaa déposé visa wala déposé googu boo ko déposé da nga dem boo ko déposé wut demal nga déposé ko da nga tukki tukki gi nag li ma la wax rek la doo dem ci benn réew toog da ngay nekk di tukki rek di wër waaw sëñ Maxtaar soxna boo xoolee am na ñoo xamante ni dañ naan seen wërsëg ci réew mi la nekk mais ñooñee ba tey mënuñoo fexee am dara ci réew mi sëñ bi ko bëgg wërsëg wala alal ju yaatu. dégg daaj ñaar yi ma lay bëgg a wax si nii. képp koo xam ne nii dox nga ci àddina. ba gis ko. soo ko gisee bul dem. te tibboo ca suuf sa wala daggoo ca garab ga. Mm-hmm. xam nga mooy lan. gis nga heure boo doxee yow sa bopp man yow na mën naa ko njëkkee ci yow mi nga xam ne yow da ngay téye micro di wax. nga xam ne su ma la waxee la lay wax nga dem gis ko def ko su xamut jëlal sa micro ne man maa ko waxoon amut. dégg képp koo xam ne dox na ba dem ci siddéem. waaw goo xam ne nii ca taatu siddéem goo xorondang mu ngi fa xorondong. Uh-huh. mooy ci ñi déggul olof mooy melentaan yooyu nga xam ne dañuy gàddu pepp dugub. Uh-huh. am benn pa suuf ñuy wër. waaw soo demee ba ci li nga xam ne mooy siddéem mhm. nga fekk fa tobbuk xorondong tibbal ci suuf sa dagg ci reenu garab ga bu dee kuy jaay la danaa ñëw ci moom beneen secret moom ci moom ci loolu ci wàllu woowu oh. bu dee lu muy jaay la it danaa ko ci wax ci wàllu woowu mais bu fekkee ne koo xamante ni dafa bëgg yàlla ubbil ko wërsëgam mhm. na jël reenu garabu siddéem googu noonu noonu te taat woo am xorondong mu tibb suufu xorondong bi ba pare mu gas li nga xamante ni moom mooy ren ba am na it lan mooy lañ koy neexalee pour man ko dagg uh-huh. soo ko amee nga boolante ñaar yi nga jëfandikoo ko ci weer wi nga xamante ne nii moom lay olof di wax maanaam weer wu bees arab di ko wax ayaamul bay di mooy bu leeree diggante benn fan bi ba fukki fan ak juróomi uh-huh. nga sangoo ko uh-huh. ci se dund giiri dund amul lenn looy xut mu jafe ñaar moo am na ci wut xaalis dégg daal ni dana ci àddina fu muy utee xaalis. waaye nit dana dox dox dox dox dox ci àddina ba xaalis di ko ut. nit dana dox dox ba xaalis di ko ut boobu nag moo gën. Uh-huh. mu ngi mel ni it kuy ku koo ni dafay ut yàlla rek. Uh-huh. nga dem di ut yàlla. wala yàlla ci boppam yow di la ut uh-huh. am na ñoo xam ne yàllaa leen ut mu ñoo ñooy li yàlla yàllaa leen méngoo am na xam ne ñoom ñooy ut yà ñoom ñooy ut yàlla ñooñ nag ba tey ñu baax lañ waaye nag wërsëg it ba tey am na ñoo xam ne dañ koy ut waaye am na ñoo xam ne wërsëg moo leen di ut bu ko defee nag nit koo gis nag dégg mu nekk ci mbir ren ba déwén. amul ca dara rek dafa yorewul lu weer waaye képp koo gis mu nekk ci mbir ren déwén yàlla defal ko ci buntu ubbeeku yàlla defal ko ci xéwal rek xamal nu mu amee na. moo tax dégg daal ñun ñu ngi sant yàlla bu baax ci li nga xamante ni moom mooy xéwalam. ndax tey jii lépp loo xam ne nii am nañ ko rek. ñu ngi ko amee ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy ñaan yàlla. Mm-hmm. ñaan yàlla gan nag ñaan yàlla ak dëgg. Mm-hmm. ñaan yàlla gan nag mooy ñaan yàlla wax li nga xam ne moom lañ xam. Mm-hmm. ban ñaan yàlla mooy ñaan yàlla wax ci wax ci lu ne ci ñun. ban ñaan yàlla mooy di jëflanteeg nit di ko wax li nga xamante ni moom mooy dëgg. amul kenn koo xamante ne nii dégg daaj. amal nañ ko àq ci wàllu ñaan yàlla képp koo xam ne mos nañoo jëflanteeg moom rek li ñu jëflanteeg moom mooy li nga xamante ne nii ñun moom lañ ne te moom lañ xam. waaye luñ newut xamuñ ko waa jama xoowoon di ma laaj na ma ndax amoo luy faj ndoxum siti mhm. dañ ma ma ne kala ma ne ko kala boole man waxut dëgg mhm. fay fen man fajuma mhm. am ku ma waxoo ne ma dafa am ku ma boole ak yow jox ma sa numéro ne da nga am luy faj ngóora ma ne ko waxut dëgg man xamuma luy faj ngóora man li ma amee maanaam faj ndoxum siti bokkut ci faj tele bokkut ci am na nag loo xam ne nii suñu at maanaam suñu at as biñ toll moo moo jotagut ci ñu liggéey ko mooy lan mooy nit ku feebar tëdd wala nit ku amee ay tànk yi métti toog manta dox wala ku tëdd mënta jug am nañ at boo xam ne yàlla may nañu ci xam-xam bu ñu fa xàggee incha allahu taala dégg daaj la yàlla mayoon yonent yi ba léegi mu ngi koy may nit ñi dëgg la nag yonent moom ñëwatut waaye maqaama yi ak daraja yi ak martaba yi ba léegi ñu ngi dox mhm. ko defee nag am na loo xam ne moom tey bu ñu fa àggee ñun incha allahu taala ci ak ndëgër laay ci mag bu soobee yàlla danañ ko defal jaam yàlla yi mooy képp koo xamante ne nii jël nañ suñ loxo bii ci waxtu woowu ñuy wax ak yow toll nañ fa teg la ak koo mën a doon bu dee tànk yu métti nga am wala bopp wala yaram buñ la raayee rek nga mu sedd waaye nag nañ ñu muñul tuuti rek ci ay at ci kanam insha allahu taala loolu danañ si ñëw dégg daal lii mooy li nga xamante ni moom mooy secret wërsëg bi amut nag ku ko mën a jëfandi ku ko mënta jëfandikoo ci àdduna bi moo xam jullit bi wala yéefar nekkal daal doomu aadama rek sëñ Makhtar Sokhna bu dee wàllum kaaraange takk wala naan wala sarax wala suuru ban moo ci gën ci nit ki parce que actuellement jamono jii bëri na ñuy dund ñoo xamante ni seen bakkan mi ngi ci xottu gerte Sénégal jamono jii rëb na. balaa loolu dégg uh-huh. uh, xam nga dafa am nit ñoo xamante ne ni neexu ñoo bërëb. Uh-huh. moo xam ci kër wala ci place uh-huh. wala sa dëkk sax wala ci réew. dégg daaj gis nga tey jii Sénégal fi ñu toll nii tey. waaw man damay toog ba mu yàgg may xalaat ne est-ce que nit ñi xam-xam bi ñuy ootoo wala di ko wax. est-ce que nit ñi xam-xam boobu mu ngi nekk ci ñoom. dégg daay tey. bu fekkee ñun dañ ne ay ñaankatu yàlla lañ sëriñ lañ amee nañu secret. ah bu kenn taxaw ne man diw laa faral lu tax ko nangam dañ koo tooñ buñ ko def nangam buñ ko def nangam wala diw ne man kële laa faral na bàyyi jàmbur bu mu ko tëj bu mu ko daf ko ëpp doole di ko tooñ. déedéet yow ñaanal yàlla ci la yàlla may ñoom ñëpp ak yow mi sa bopp yow ngeen nekk ci jàmm. Mm-hmm. man loolu laa xam ne mooy li nga xamante nii boo amee lu wér da def comme ni. rat eh, sëñ Muntaxa def ñu ngi koy ziyaara di ziyaara mbaa Tuuba yëpp dugg xalwa ñaan yàlla comme ni yeneen xalifa def dugg xalwa di ñaan yàlla dégg daaj man du mag waaye yàlla boole dama ci cëri mag yi mooy lépp loo xamante ne nii réew mi daf koy itteewoo damay jug ma taxaw teesuma suma kurus ma ñaan ci loolu fu mu nekk ni may wax ak yow dégg man am naa ndigal ci loo xam ne mag mu am juróom-ñaar fukki at dugg xalwa man koo liggéey man mii di wax ak yow nii toll ci ñeent fukki at man mën naa koo liggéey loolu moom suñ borom moom ma ko defal may gu ma yàlla may la te maa ngi ci di ko liggéey maa ngi ciy tase ay melokaan maa ngi ci gis ay nit yàlla maa ngi ci gis ay ay malaayka mm-hmm. dégg daaj man gis naa jibril ah? waaw man gis naa jibril man alayhi salaam gis naa jibril gis naa it li nga xamee ne nii mooy melokaanam gis naa it li nga xamee ne nii ci moom lay dox ak li nga xam ne nii moom lay moom lay faral yàlla di ko yónni mission ci suuf dégg daaj fépp foo xamante ni bënn nañ fa teen maa la jox secret bi tey wëral borom xam-xam yëpp ku dut man du la ko wax fépp foo xam ne bënn nañ fa teen di ko root jibril teg na fa tànkam ci suuf yàlla wàccee na fa yërmandem mhm. dégg ma ñëw ci li nga wax <laughs> dégg daal gis nga xam-xam. dafa dafa sew lool waaye nag nañ moytandiku yu bëree bëree bëree bëri. am na yoo xam ne boo ko defee rek man ngaa lor doomu aadama. dégg na nag waxtaan mën naa am waaye nag kenn mënta wax a wax a wax bañ def ko. ndax am na loo xamante ni suñ diine si boppam moom moo ñu ko moytu. waaye gis nga ci secret am na nooy nooy duggee ci armel nga dem gis garab goo xam ne gégés lañ koy wax gégés. ñi miin àll bi xam nañ ko boo duggee ci armeel dem ci gégees na am na nooy duggee ci armeel bi nag ak bés boo fay dugg ak waxtu boo fay dugg nga dugg boo duggee ci armeel bi nga fexe ba gas reenu euh, gégees googu <laughs> soo gasee reenu gégees gi nga tibb ci suuf si armeel yi waxuma nga tubb ci bàmmeel yi may nga tubb ci suuf rek si armeel bi nga yóbbu nga weer reen yooyu ba mu wow boo paree nga dëbb ko sunguf dégg daaj nga dem seet bëy wu muuma boo amut bëy wu boo amee bopp bëy rek am lameñoo nga jël ko weer ko ba mu wow nga boolante ko dëbb ko boolante koog sungub soos ma la wax dem fekk mbaam mu dee nga yëkkati bopp ba tamit tibb ko mu tëddee ndeyjoor maanaam mbaam mu dee tëddee ndeyjoor bu tëddee càmmoñ baaxul boo ko defee nga boolante ko nga jëfandikoo ko mboolem mbindeef moom xam ne yàlla bind na la ngay jinne mhm. wala ngay doomu aadama wala ngay mala ak loo mën a doon mënut ci sa jëmm ji dara soo ko xasee jëfandikoo loolu ba giir sa giiru dund gisuma benn mbindeefum yàlla mu man ci dara secret la boo xamante ne nag gàllaaj gu ñuul la baax na gaa di ko jëfandikoo waaye bëri bëri bëri bëri le ko tamit baaxut mm-hmm. bëri di ko jëfandikoo baaxut mooy li nga xam ne nii ci armeel lañ koy lañ koy liggéeyee beneen bi si tegee tamit mm-hmm. mooy su fekkee ne man ngaa am malikaan bi nga xam ne moom lañ doon sàngee nit ku waaye dawlu mm-hmm. nga am ci morso ba nga boole cag saabu ba nga xamante ne ni tey jii moom mooy biñ ko doon sangee ndes li nga boole ñoom ñaar yëpp alaaj dégg daaj. waaw est-ce xam nga ne alaaj dégg daaj loolu danañ ciy liggéey nit. Mm-hmm. liggéey boo xam ne bokk ci liggéeyee bu fekkee jabar jooy takk takk la wala ku ñëw ba sëy si. nga jël saabu bu bind ci turam. waaw booleeg morso boobu ma la wax. Mm-hmm. nga gas ba mu xóot ci kër gi nga suul ko. wala buntu kër gëm dëkk wala néeg ba mu nekk nga def ko fa bu fekkee ne mënoo def loolu yëpp nga sànni ko ci rondal ga mhm. est-ce que xam nga ne maanaam dee kese moo lay tàggale ak moom la ilaha illallah loolu man maa la ko dolli waaw noob la lu am la nag lu am la loo secret la yoo xamante ne nii lu wér la loo xam ne mu ngi fi di dox waaye nag problème bi moom mooy euh, xam nañ koy defee mhm. wala xam sa xam-xam bi mhm. loolu moo fi nekk waaye lii ma la wax moom ala kulli xaalin mu ngi fi te alhamdulilahi fa tabarakallaahu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ñun. sëriñ bi la ngay tàggatoo ak lay askan wi lay suivre ci MPROD TV. waaw damay wax ne. àddina ñaara fi ne. mooy doomu aadama bi ci boppam. ak jamono bi. ñaari tur lañ nag waay kenn la. dégg daaj jamono. mooy doomu adama rek doomu aadama mooy jamono. ndax liy soppi jamono ji doomu aadama bi la. jamono bi tam ni mu mel rek doomu aadama bi moom moo tax mu mel ko. kon nañ xam ne jamono bi ni mu mel nii mu mel ni tey. doomu aadama yi la. dégg nañ delloo suñ xel ci yalla nañ delloo xaat ba tey ci yàlla. nañ jaamu yàlla te nañ man di sonn ci jaamu yàlla. dégg daaj yàlla indiwut ñu fi dara. maa xalatul jinna wala insa illa li yaabuduni bindu ma nit ak jinne lu dul ñu jaamu yàlla jaamu rek la ñu lii lii njëriñ lii njëriñ ci nit ki heure bu roccee ko ci moom rek nit ki nekkatul dara ndekk moo tax borom xam benn borom xam-xam daan wax ne heure su doxee ci àddina dema dema dema dema dem ba lii doon yàlla ci man dëñ su ma dee sax wallaay sànni leen ma ci ci ci gannaaw kër yi tani lekk ma parce la doon yàlla ak njëriñ ci moom dëñ na mhm. doomu aadama dégg daaj dafa am lu ko composé mhm. li ko composé li feeñ dëgg la mooy jëmmam ji loxo yi tànk yi moom ngay gis waaye buñ xamoon kattan li nga xam ne ak man-man bi nga xam ne yàlla def na ko ci doomu aadama ba tax tey jii ngay mën di def lu nekk lu dul loolu bu ko boo ko defee da ngay fay boo dëkkee ci kër di lakk courant di lakk ndox dangay ngay fay waaye doomu aadama safaraan ci moom soo xamante ne nii ak leeran ci moom goo xamante ne nii ak kattanan ci moom goo xamante ne nii tey su fekkoon ne yàlla dafay fayeeku nit kooku tey kon nit kooku tey dindoom mën naa jeex ndax du am fay waaye nag lim la sant lenn la mooy lan mooy nga di ko jaamu. jaamu yàlla nañ góorgóorlu ci loolu Sénégal li ñu gën a manqué moom mooy jaamu yàlla lañ war a jaamu yàlla yëpp dañ koy toog di ko. dem ba mu nekk nii. nit ñi léegi da ngay gis ne ñëpp ñu ngi daw dugg ci politique bi. sëriñ daara yeeg imaam yeeg yaa ngi dégg ah, ñi war a ñi war a wax ci dëkk bi war a orienté nit ñi léegi dem nañ ba yow koo déglu rek da ngay defe ne sax dafa ànd ak kenn. kon nag loolu mooy li nga xamante ne ni dégg dëgg la politique gaa niñ koy waxee sëriñ war na politique imaam war na politique ustaas war na politique dëgg la war nañ ko def dëgg la may ban politique lañ war a def bu fekkee ne dañuy xiiroo ŋaayoo déedéet boobu nit yàlla waru ko def imaam waru ko def dafa salte bu fekkee dañuy xastante waxante lu ñaaw boobu imaam ko def sëriñ waru ko def bu ne dañuy xaay wante ay sutura ak i mbóot boobu sëriñ waru ko def imaam waru ko def ustaas ko def parce que kooku yàlla daf ko fi teg te wax ne al ulama warasatul anbiya yi borom xam-xam yi ñoom ñoo doon yonent yi su fekkee ne nag borom xam-xam yi doon yonent bi sëriñ mu ngi ci biir oustaz baa ci biir sëñ daara baa ci biir sax même sax ki nga xamante ne nii sax jàngu arab te jàng leneen loo xamante ne nii ba tey it mën nañ koo méngale xam-xam kook ba tey mu ngi ci biir kon nag ñooñu ñooy ñi nga xamante ni tey ñooy kennu réew ñoo yor démocratie réew ñoom ñoo yor ñoo yor mbiri réew mi kon ñooñu nañuy góorgóorlu toujours di seetlu li nga xamante ni moom mooy moom mooy seen waxi dégg naa ne wax nañ ba pare waaye laajooma koo xam ne jëkkëram <laughs> doxaan rek lay def laajoo ma ko. waaw am na ñoom seen jëkkër dañuy doxaan di taxawaalu rek. dégg dégg daal gis loolu. dafa jot ñu wax ci. Mhm. dafa am ñoo xam ne seen jëkkër yi doxaan rek lañ nekkee ci dëkk bi. Mhm. am ñaari jabar wala ñett. Mhm. ba leen ci kër gi dem di doxaani. dégg man maa digg maa jigéen ñi lii. ku ko ci def sa jëkkër bi sa jëkkër fort fort mu ba ma ba doxaan. mooy lan. dégg daal jigéen ju may déglu. am nga borom kër waxtu wu nekk. mu di la fen ne damaa nekkoon ci réunion wala damaa nekkoon ci séminaire te ci jigéen la nekkoon dem nga ba xam ne moom mii ci loolu la ne wala wóolu ne moom ci loolu la ne. dégg daal lii man maa la ko wax képp ku ko def. képp ku ko def. Mm-hmm. billaahi lazi laa ilaaha illaa sa jëkkër. sa jëkkër. Mm-hmm. beneen jigéen bu dul yow bu mu ànd lu dul sëy nag laa wax. beneen jigéen bu mu yow bu mu àndat bu dul yow. Mm-hmm. ci lu duhut sëy. matériel bi du dox. lii ma man maa la ko wax. keneen ku mu àndat. mais ban matériel. dégg daaj ma ne. wax ju xegg dafa ko moom yow doo gone mag nga. mais dama ne jabar kañ su ma koy wax ak jëkkër nga su ma ne matériel nga man a comprendre da nga bëgg ma xaaw yi sutura si def ni waajoo ji def waaye du ma ko def dama ne. képp koo xam ne daal am nga jëkkër muy wër di taxawaalu di def na ko sudut noonu. lii ma lay bëgg wax si nii boo ko defee. billahi <laughs> lazi laa ilaaha sa jagar su génnee su génnee def na ko su dul noonu ngañ demba yi du dox. lii ma man maa la ko wax. ngañ demba ci Pastef. ngañ demba bi may wax man mooy maanaam Ablaye Ablaye Ndiaye bi du dox. ngañ demba indi na coow ci Pastef. na président Ousmane Sonko lay wax. na na na na toogaat ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo bokk Pastef. Mhm. ñu waxtaanaat. Mhm. bu baax a baax. ndax xam nga nit. Mm-hmm. nit. wax dana ko defaral waaye alaaj dégg daaj nit tamit wax dana ko yàqal. Mm-hmm. sénégalais yi nag ñu ci bëree bëree bëri bëri dégg daaj dañoo desee am dégg-dégg. Mm-hmm. ndax sénégalais yi ñu ci bëree bëree bëri seen xel yi dafa dem. maanaam lii olof di wax ànd ak suñ sogo. dafa ci am ñu bëri ànduñoo ak seen sogo. waaye dafa am wax yoo xam ne ñun dañ ko rëyal senegal da ko rëyal da ko diisal lool. parce que Sénégal soo ne yàlla nee na ma sax. wala nga ne gént naa gis suñu borom nee na wala gént naa gis suñu borom sax soo paree yow la ñuy vaar mhm. ne xée mu wax rëy na dafa am wax yoo xam ne nii dëgg la ki koy wax si xam-xam la koy teg mhm. waaye ñun am na wax yoo xam ne ñun Sénégal miinuñ ko suñu aada miinu ko mhm. so yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëwee fekkoon mu dëppoog lislaam da ko faa ba waaye aada gu mu fa fekk dëppoog lislaam da fa jëlee dafa am loo xam ne ñun suñu aada moo ñu ko mayut xam nga tey suñu aada mayut ñun ñun tey nga toog ci internet wala nga toog ci télévision di tudd awra moom boo ko waxee ku ne xam na awra waaye nag di xuus ba ca biir di tudd nangam wala nangam wala nangam loolu nekk waxante dëgg loolu man mii wax sax man man xam naa ne man pour may sama bopp respect rek loolu man waruma ko wax. am na loo xam ne it wax joo xam ne dafa diis. dégg daaj. nañ defaraat wax yi li may jeexalee. Mm-hmm. nañ ko oyofal dégg daaj. Euh, ngir ëllëg nettali bi. Mm-hmm. nañ rafetali di wax yi ngir ëllëg buñ koy nettali. Mm-hmm. am na loo xam ne nii. xajut suñ diggante ñu ni neen ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñoom ñoo ñoo bokk réew mi. Mhm. kon nag nañ fexe seet li nga xamante ni moo mën a defar réew mi. Mhm. waaw li mënta defar réew mi ñu bokk waaye li ma a xamal daal moom mooy nga xam ko. Mhm. dégg danaa am lu mën a jeexalee mooy. changement moom. changement. changement moom dana am. lii moom maa la ko wax. Ah? billaahi wallaahi wataalaahi. allazi laa ilaha illa changement dafa am dégg mhm. dafa am benn rab bu may tënkee signal la tudd waaw ce que xam nga ne mboolem lu am ñeent tànk di dox mhm. moo ci man waaw mhm. ndax dafa am benn jamono ñoom ñoom yi di di bàkku kenn ku ne di bàkku gaynde ne man maa fi man ñee ne ko ah yow may def bu dee doole man maa la ko signal waxul dara ndax signal moom soo ko gisee rek bu wala bu déggee koy ñëw rek moom dafay banku jël yaramam yëpp dugal ci biir li nga xam ne moom la ko yàlla jox ni secret. Mhm. muy dégg yi ko wër. Mhm. da ngay foog ne soo dundut. Mhm. waaye heure bu bëggee ju dox rek da gis mu génnee loolu rek daal di daal di ay tànkam. léegi nag moom bi rab boobu nga xam ne dafa wax ne moom mën naa lekk ñëpp ñëwee. di lekk rab yi lekk rab yi ba mu jeex mu des signal signal jàkkaarloog moom ne ko man de mënoo maa rek mu daal di rey ñay daal di jël jël signal rek daal di ko ngànk rek lok oh. def ko ñaari matul ñaari waxtu mu tëdd fekk moom ba mu jë jàppee signal ngaa ko koy seex rek war na ko rek signal moom def na ni nga xam ne moom la ko yàlla may ni melo moom mooy delluwaat ci biiram bi yaa ngi dégg euh, euh, ñay daal di dee bi nay dee moom mu génnaat doxi soxlaam. rey bu simple la ko rey. rey bu simple la ko rey. Uh-huh. bu uh-huh. xam ne loolu dégg ba tey it ci mbiri la. Uh-huh. moo tax <laughs> damay damay toujours damay toog ne est-ce que état bu Sénégal ñoom ñu ngi ñaan yàlla man loolu dama koy xalaat. Macky Sall mën na demoon na fi Sédhiou de Sédhiou. dama koy xalaat ndax ñu ngi ñaan yàlla xam nga tax ma ne ñu xam ne tey bu ko président Macky Sall xamoon. waxuma nga ko ngir man de. dama koy wax nee na dafa loo xam ne tey bu ko xamoon moom. ba jot ci maanaam dootu amati nit kum jàkkaarloon mu koy opposé wu ci kaw àddina. te tey loolu tey bu ko xamoon tamit. lépp lu bëgg ci Sénégal bu fekkee dafa bëgg xol yëpp tourné wu ci moom. billaahi lazi laa ilaaha illa man maa ko wax li des ci mandat xam bala moo jeex. balaa 2024 mbooleem kuy sénégalais képp ku fi nekk yor xol di dund sa xol dana delluwaat ci moom. loolu mu ngi fi lu xam la. waaw nañ gëstu ji xam-xam te di ko defal nit ñi. nañu nañu dimbale nit ñi. dégg daaj nañuy dimbale nit ñi ci li ñuy yàlla jox. nañuy baaxee nit ñi xam-xam dégg daaj. ku ñàkk euh, bul ne bok ci société bi. nit la. yàlla moo am wërsëg di ko joxe. bool ne nit amul du ma ko defal nit amul du ma ko ñaanal. déedéet ku am ñaanal ko ku xamul tamit yëkkati la nga xam ne yow moom nga man ci sa xol nga jox ko ngir yàlla mu dem ndax ëllëg mën na nekk lu ne man na am lu ne. waaye nit amul rek du ma ko ñaanal nañ ko nañ ko moytu ndeku bu baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. ñi ngi ñi ngi ñi ngi foofu. Euh, di wax soppe yi ak am di jàmm yi jàmm rek la woon mooy nekkoon ci liñ ñu a ne mooy suñu liggéey yi nekkoon ci kurus doon jëflanteeg euh, yàlla ndax parfois doomu aadama itam dafay laaj nga delluwaat ci yàlla mi nga xam ne moo la fi indi te teg la mission muy jaamu yàlla nga dem jaamu yàlla toog sóora xool xool addina bi xool li nga xamante ne ni moo xew xool li nga xamante ne ni yow it moom moo ci sa rôle moo ci sa kàddu comme yàlla may na la kàddu ngay wax nga wax loolu moo taxoon ñu gëj a génn si suñu site bi di Mprod waaye du dara jàmm ak salaam rek la woon ñu ñaanal sénégalais yëpp ak fépp fu sénégal a nekk jàmm ak salaam yàlla def ci yal na yàlla saxal fi jàmm. Mm. yal na ba nga xamee ne nii lépp loo xamante ne nii seen doomu Sénégal soxla na ko rek dafay génn rek dem Kaolack wala mu dem Ziguinchor wala mu dem Diourbel wala mu dem Dakar ut ko fa walis muy dem yaa ngi dégg. Eh, beneen réew di ko fa uti yàlla mën na ko yàlla moo koy def mm. yàlla nañu ko yàlla defal wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dégg ngeen sëñ Makhtar Soxna borom biddiw yi tey leeral yu am solo yi mu leeral jëme ko waaye leeral na tamit nit ki ana naka lay def ba ak dundinam neex bokk na ci jigéen gu bëgg jëkkër leeral yu am solo ci leeral waaye nit koo xamante ni atte nañ ko boor koo yóbbu fa nga xamante ni moom mooy ca kaso ba leeral yim ci leeral tamit yaakaar naa dégg ngeen ko leeral na ci kaw góor goo xamante ni da nekk ak sa jabar di doxaan sa jabar di souffrir sa jabar di am lu ko metti tey ku jigéen kookee bu ko seetsee andi na ci ay leeral dugg na tamit li nga xamante ni mooy wërsëg ku ko bëgg wala ku bëgg alal ku bëgg teranga leeral yi mu ci leeral am na solo alerte na nag état bi waaye opposition bi tamit ñaax na leen gën na leen a dolli Sëñ Maxtaar Soxna borom biddiw yi numéro yaa ngi noonu affiché képp ko ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp dañuy suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci daraja yi Muhammad Rasulullah